le président du conseil communal de la jeunesse bu Koungheul Pape Demba euh, ci boole administration bi ñu bi mu dox les ñu ngi lay nuyu di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi fi taxawal bi rek di am contentement bu baax a baax ci bés bi nga xamante ni commencé nañ ko ci jàmm war a jeex ci jàmm ak salaam li gën a waral conseil communal organisé lu mel ni dañoo gis ne corps de métier dañoo bëri ci dëkk bi te ñu bëri amul sens di daje di kaf di foo di def loolu moo tax nag conseil communal amoon idée ni ñoom tamit dañ leen may benn fenêtre bu ndaw organiser la benn tournoi boo xamante ne ci tournoi boobu ñoom dinañ ci xamante ne dinañ gën a renforcer seen relation dinañ xam naan dinañ dem naan dinañ ñëw laan yàlla jàppale na buñ ko commencé ba léegi tamit amagul leen loo xamante ni ñaaw na ci wala naqari na ci ñoom ñëpp ñu ngi dem laan ñu ngi kaf ñu ngi ree yàlla jàppale tamit ñu am parrain boo xamante ni ku wuyoo la parce que bu ne Thierno Lamine Ngom mooy parrain bi conseil communal amul kenn koo xamante ni ñaawlu na ko te loolu foog naa mu ngi doon conseil communal def choix boobu mën nañ ko wax parce que tey conseil communal dafa nekk structure boo xamante ni dafa apolitique te dañoo nekk département boo xamante ni dafa doy waar ku ci nekk am na foo féetee mais bu ñëwee ci CCJ bi nag dañuy def li nga xamante ni moom la ñuy teg samay mais apolitique bi dañ koy demee à cent pour cent moo tax tey boo xoolee amul benn coloration politique kon ñu ngi sant yalla bu ba a tey boo jëloon un x nga parrainé ko ko conseil communal bi foofu la bokk wala moom la ñuy wala genre yu moo tax ñu jox bi jox koo xamante ni dañ koy rafetlu beneen bu ñu topp tamit li war a leeral mooy le premier magistrat de la ville de Koungheul muy monsieur le maire Alioune Badara li moom moo ñu jàppale ba ñu mën a def lii parce que subvention suñ koy am ñoom ñoo ñu jox nekkul obligation mënoon na ko bañ a joxe mënoon mënoon na ko tardeel mais jox nañu ko ci heure bu ñu ko waree jox moom tamit ñu delloo ko ci njukkal ko comme parrain d'honneur loolu leen amoon lu wax pour l'instant ci kàddu ci biir loolu rek bu ñu mais jafe-jafe xam tey benn message boo ci bëgg wax askan bi li ko administration bi mais leneen lu ñu ciy yokk rek mooy ñun suñu sañoon ñëpp dinañ ci gis seen bopp mais nag xalangu dajut suuf dañu commencé première édition bi mën nañu wax ne cinq hectares wala six bii mën nañu wax lu mu dee dee war na mën neuf wala huit su doonee ñu gën ko yokk parce que am na ñu bëri ñu ñu interpellé nañu carrément ñoom dañoo waroon a football dañ ci waroon a bokk nangam sangam te wax nañ dëgg parce que corps métier leen mais nag suñ xel moo doyut suñ xel moo matut ñoom tamit ñu comprendre ñu ci loolu kon loolu dañ ciy sant yalla bu baax a baax benn affaire bu ci xawoon a ñagas bu ñuy métti lu ba fi ñu toll nii mooy mécanicien yi que bëggoon nañ ñu bokk ba ci réunion bi ñëwoon nañ ba joxe seen kaddu dem ba dernière minute ñu ne conseil communal bi dañuy politique moo tax ñu organiser tournoi bi ku ne tournoi nag ne référence ku ne référence moo lay permettre pour nga mën a identifier acteurs yi joué tey ñun amul licence mais dañuy def règlement intérieur boo xamante ni tey ku ciy participer da bind sa tur bind sa sant bind sa numéro carte d'identité tey boo bindee liste kese ne Thierno Lamine Ngom point boo ne Thierno Lamine Ngom man mën naa ñu ne carte ñoom ñu jëlee ko autrement am ci beneen vision bu négative ñu ne ñu dañuy politique mais ba demee ba ci biir comprendre nañ te tey gën na ko firndeel tamit amul lenn lu fi politique amul kenn ku koy kenn kon ñoom demande nañ ba benn instant yaat nañ seen bopp waat nañ ni jéggalu nañ ne dañoo ñàkkoon a xam moo tax mais bu déwénee xam naa ñoom ñoo fiy njëkk. kon déwén presque da ngeen da ngeen ci boole presque déwén. incha allahu rabi presse bi dañoo daw. président. conseil communal de la jeunesse muy Pape Demba Thioban ñu nekk le parrain muy moom Thierno Lamine Ngom gën ko xam ci Lamine Daba euh, Thierno tey nga ñëw sa dëkk dellu sa dëkk ci xam ne yàgg na fi toj comme ni ñu ko waxee maa ngi dégg léegi Malick Junior Kanté di ko wax fii nga toj foo dem nekk fa capitaine mais tey conseil communal de la jeunesse muy ndaw ñi delloo la njukkal def la parrain lan nga yëg bi nga ñëwee tey ci jour tey waaw merci tout d'abord Matar maa ngi leen di bu baax la presse di leen wax na yéen a ngi def liggéey bu am solo surtout ñun ñi nga xam ne tey nekkuñ biir Koungheul donc information ñu koy am en temps réel beneen bi aussi lu may yëg mooy contenté parce que tey liñ naan dëkk si dëkk bi teg si dëkk bi moo ko gën tey suñ demee tey ba ndaw yëpp booloo tey tànn la gënoo fi defoo fi lu fi kenn defut ñu ne dañ lay sargal je pense que loolu mbégte du ko raw donc kontaan naa si bu baax vraiment di wax ne aussi lépp lu ñu doon def aussi dinañ si gën a góorgóorlu parce que ñaax na ñu daal. beneen mbir mi ñu bi xam ne mais xel wax rek ne que ñun moom sport leen gëm sport leen xam ci leen dund te foog naa ne aussi ci leen di dee parce que dafa doon loo xam ne dañ ko bëgg te dafa nekk si ñun bon niñ ci def ba def ci liñ ciy def je pense que ñoom aussi am na lu leen di xaar fulla moo leen koy may jom moo leen koy may dëggu moo leen koy may ñun nag lépp luñ si mën pour accompagner leen peut-être les moyens ne sont pas là sont pas mais lépp luñ si mën su dee conseil la su dee su dee message la bu dee moyen la bu dee gunge la dinañ ko ci def incha allah ndax ñun moom ku ñu xam-xam ne moom lépp lu football woote lépp lu sport woote kenn duñ si jiitu voilà waaw loolu loolu aussi pour wane jëmmal bés bi rek parce que ñoom aussi choix bi pour man dafa rëy quoi man aussi en temps bi ma si tollu dama doon bëgg bés yu toll nii ndax final day am jëm donte moyen nekku fa mais aussi ak les les les connaissances ak les amis les parents je pense que ñëpp jàpp neen si pour ñu gën a taaral bés bi tey lépp lu final di laaj pour man tey mi ngi fii tey ci bés bi te du doolee Lamine kese doolee ñëpp la waaw je pense que diggante ndaw la rek diggante ndaw la diggante ñu bokk luñ bëgg mooy Koungheul Koungheul moo ñu boole Koungheul jëm kanam Koungheul raw si département yi je pense que loolu moo ñu boole. Hmm. Eh, daf may fàttali ay jamono gombe ay jamono gombe derbi yu ngand yooyu waaw je pense que final moom final fête la mais final bi moom ndax gars yi dégg naa la ñuy tëkkante te d'habitude final yu mel noonu gars yi dañ doon tëkkuwante uh-huh. donc lii moom mbégte la quoi vraiment jërëjëf merci beaucoup ñu ngi ak le maire Aliou Ba monsieur le maire day nga ñëw fekkee final bi nga xam ne conseil communal moo ko organisé mu nekk benn ci seen bi dénombrement mën nañ ko wax parce que yéen tey bi ñuy wax conseil communal le maire moo nekk le parrain d'honneur parce que lépp lu ñuy def subvention ñëw ko duñ ko mën a organisé comme ni ko Pape Gondo waxee mais tey nga ñëw fekkee final bi nga xam ne dafee ko dañu tugal bi teer na lu doon bala ngaa ñëw ci parrain bi bala ngay wax ci diggante conseil communal organisation final merci le très grand PDG euh... jila félicité féliciter d'abord euh, di félicité conseil communal de la jeunesse ci initiative bi d'abord parce que vision moo tax euh, ñu cambar am bébét organiser lu mel ni tournoi bu mel ni boole ci les corps de métier ak l'administration bien que mairie waroon na indi équipe mais incha allah at yii di ñëw donc di kontaan ci ñoom bu baax di rafetlu bu baax euh, aussi idée bi au nom de du premier magistrat de la ville Alioune Badara nga xam ne moo ñu fi yebal ak euh, toute euh, l' équipe municipale de Koungheul. message bi c' est toujours le même di inviter la jeunesse koungheuloise dans son dans son ensemble gën a am taxawaay bu dëgër am neen ko ñu yokk ko di pérenniser des actions euh, citoyennes euh, fi leen seen dëkk soxla seen gox soxla rek ñu fay intervenir. tey rek euh, bi di am naa lu bëri lu ma ci wax. en tout cas te foog naa dinaa ci bëri morom mooy ñu parrainé nit dëkk bi yëpp pratiquement mel ni ku si nekk mel ni yow lañ ko parrainé loolu yombul de et que Lamine aussi daf ko liggéey daf ko mérité Lamine il mérite ñu même ñu parrainé ko phase nationale phase régionale ak yeneen compétition parce que c'est quelqu'un qui a toujours œuvré euh, pour Koungheul surtout ci côté sport bi ay actes yu positif toujours rek lay lay lay posé donc loolu ñu ngi ko ci remercier di ko ci féliciter te bu ko defee tamit wàccoo wàcc na parce que dafa am des fois ma remarque yoo xamante ni dama koy def si nit bëriwul nit mun a góolu mun a fubal loolu ku am pas-pas ku am détermination ku am engagement moo koy def parce que équipe ensemble la donc bu amee foo xamante ni am na ku fa manqué mu dem jël gants yi bu nekkee ci gants euh, ci camp yi bi mu fubal bu nekkee ci camp yi ñu soxla ko ci terrain bi mu dem ci loolu c'est rare donc loolu man dafa nekk loo xam ne dama ko koy xoolee te noonu la mel ci àddunaam tamit donc di ko encourager di ko féliciter di ko ñaanal aussi moom ak euh, soxnaam bi nga xamante ni ñaa ñaawul yanj bi trop ya fépp fi ñu bëgg a yegg yàlla yeggal leen en tout cas ñëpp kontaan nañ ñun biñ ko yëgee euh, maire Badou dafa mel ni moom lañ ko parrainé te aussi bu daf ñu jox instruction ferme ne ñu côté buñ ci mun taxaw rek nen dem ñu def tout pour que organisation bi mu réussir en tout cas man dama kontaan trop trop ci Grand Lamine macha allah. Euh, euh, ok bon euh, waa comme mooy suñu première édition et jàpp nañ date bi donc dineen ko siiwal dina jaar fi mu war a jaar. léegi nii rek bi ñu ñëw loolu la le directeur de cabinet Madiaw bi nga xam ne ñoo bokk délégation ma profité nuyu ko moom euh, Madiaw Meng mi nga xamante ni mooy le bras droit du maire ak euh, ñu ngi ànd ak aussi euh, le grand Wagne Maodo Lamine wañ nekk conseil municipal géré commission éducation ak El Hadj Gueye mi nga xamante ni c'est un responsable politique donc finale bi ñu ngi koy préparé ñu ngi ciy waxtaan e que incha allah ñu ngi ko bëgg ànd ak Koungheul waa yëpp couche yëpp ak presse beeg ñëpp. pour que mu nekk euh, benn édition boo xamante ni day doon une édition réussie ah mu am ay innovation de taille yoo xamante ni dina méngoog euh, jamono ak dina méngoog li nga xamante ni moom la xaar si ñu bàyyi yow le parrain ak euh, représentant du conseil merci merci euh, di am benn sentiment de contentement ci victoire bi nga xamante ni si am nañu ko ci une victoire boo xam dañ ko mérité parce que je pense bu ñu xoolee parcours. depuis le début kaafi kaafi kaafi kaafi kaafi kaafi kaafi et way vraiment ñuy kontaan trop d' abord di félicité aussi organisation corpo bi la am solo la ndax dina raffermir lien yi nga xam ne am na si diggante yi nga xam ne moo nekk si Koungheul en même temps dina raffermir lien yi si ñun entre euh, joueurs et même entre euh, d' autres équipes donc di rafetlu d' abord di félicité aussi euh, organisation corpo bi di kontaan ci équipe bi aussi buñ gisee match bi ñu ne aussi di leen encouragé mooy équipe d' Aximane bi ils n'ont pas Vraiment, ils ont bien joué. Mais comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, négocie. Et on l'a négocié, ah, waa Koungheul euh, ginnaaw bañ ñu yëpp nuyu aussi xibaaru Bambouck vraiment ñu ngi jaajëfal ñëpp di félicité ñëpp di gërëm surtout waa conseil communal bi nga xam ne ñoom ñoo organisé lii nii ah, ñun la ah, depuis que je suis dama jéem mettre en place benn équipe fii si district bi chaque soir dañuy entraîner au niveau du centre de santé loolu aussi nekkoon na secret de sa fait am nañ benn yëngatu bu tuuré loolu moo ñu différencié bi équipe bi en plus en plus aussi euh, gars dañ ko bëggoon parce que bien vrai que ay acteurs sant lañ mais la plupart ay joueurs lañ woon fan nekkoon te Koungheul vraiment nekk na dëkk boo xam ne football yomb na fi ah vraiment loolu daal mooy suñu secret tournoi métti woon na trop chaque match dañuy mëne mais à chaque fois dañ koy jëlee dañ koy waxoon nañ ko ñëppay ñam ñëpp ñam nañ quoi waa xam nga loolu wax defe naa ñoo koy wax rek El Samba Diop bi mais xam nga bu ñu Argentine jël coupe du monde dóoruñu ko arab yi dóoru ko ñun nag euh, sportif lañ bu ñu ñoo defar waat xam na ni kenn dàq nga fubal mais yabee des manquements dañ defar waatee yaakaar naa ne suñu borom gis ngeen li mu def loolu kese daal moo nekkoon li nga xam ne moo nekk non macha allah ñun koy amuñu fayu waa conseil communal loolu la leen ñu ngi gërëm bu baax a baax xanaa juste pour suggestion prochaine ñu gën a segg affaire yi parce que esprit bi corpo la ak ñi travail la mais peut-être amoon na yenn manquement mais yaakaar naa ne euh, année bii di ñëw dinañ ko changé bu baax a baax mais vraiment ñu ngi leen jaajëfal parce que métti woon na trop organisation métti vraiment ñi nga xam ne ñooy initiateurs yi ñi nga xam ne ñoo def euh, tournoi bi muy conseil communal de la jeunesse lii dafa baax parce que benn esprit de cohésion la tey ñu bëri xamante nañ taximaan yi yeneen corps de métier yi ñu fooree loolu dafa neex vraiment dañ koy remercier les organisateurs beneen bi nag ñu ciy remercier ñi nga xam ne ñoo jàpp ci ci ci tournoi bi comme ni ko sànq ni ko sama naataango ngay waxee ñi nga xam ni mooy parrain bi mooy waa ODCAV en tout mooy Koungheul mooy presse bi yéen di xibaaru bamb à chaque fois bu ma ñëw bu ma suivre match bi sax. ci yéen laay ci yéen laay en tout cas dégloo xibaar yi di ci am kontaan trop di remercier taximaan yi di remercier corps de métier yëpp lii dafa neex dajee foo ree ñëpp vraiment dañ leen di remercier di remercier également taximaan yi ñoom itam vraiment seen équipe jàmbaar lañ mais mention spéciale également suñu équipe district vraiment depuis tournoi bi ba léegi macha allah équipe bu waaw xoolee maa ko yore woon maa yore woon moo tax ma ñëw maa yore woon moo tax ñu gagné vraiment di remercier di remercier vraiment ñëpp lii dafa neex foo la kaf la ree vraiment kontaan nañ trop lii moom dafa wane Koungheul benn bopp la kenn mun ko xar ñaar donc di remercier ñëpp di wax ne vraiment kontaan nañ fête bi la fête était très belle merci beaucoup merci merci jërëjëf.